Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël de la confiance renouvelée, merci de vous des like. merci de vous des abonné, merci également de baisser les commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations. Mbokki Sénégalais yi fépp foo leen 14 régions du Sénégal àdduna World këpp gox goxaat yi diaspora ñu ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci lalu hôpital yi ak ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen wér ak jàmm ñi nekk ci kaso yi ngeen dellu si seen njaboot nekk ci yoonu dëgg ñi dëddu àdduna suñu borom xarale àjjana fi daw si te xare te yéexe ñu on avance ensemble dans la magie de eSport TV actualité oblige dañuy waxtaanee gars yi nga xam mooy Jimmy Carragher Jimmy Carragher nak néna tay Sadio Mané moo tax Jürgen Klopp mëna jënd ñoom Mohamed Salah ay tout et tout et tout bu joueur yu bari tay bu ñu Liverpool c'est grâce à Sadio Mané loolu lañ ci wax mais aussi ñi nga xam ne FC Barcelone mi attaqué dossier Koulibaly ak aussi joueur sénégalais yi nga xamné tan nañ leen ñu nekk meilleur joueur africain yi loolu la ñuy ci mais d'abord VAR bi ah ni ko waxee sa su nekk suñu frère Souleymane Sylla bu leen ko faté gaay yi wax sa su nekk rek ku nekk sa dërëm bi ci duggal sa bop nga koy def et que aujourd'hui lepp lu ñu def dañoo bëgg mo am transparence moo tax ñu defal lien Kopar expressif pour ñu nekk ci tuugal ak ñi nga dañ fa bëgg dugal seen xaalis am ci visibilité ñeneen ko également par Wave wala par Orange numéro ñi nga aussi def application def ko par Western Union wala par Ria ñu contacter si numéro bi ci souffle bi détail on avance ensemble gars solo mom nak nek gardien États-Unis mom dañ ko japp mu doon dawal auto di nelaw fekk dafa mandi ci ba muy dawal oto bi nak ñaari cheikh ñoo nekkoon ci ginaaw ñaari domam mom nak fi ne neen dafay dem cure de désintoxication nee na maanaam day dem fi nga xam moy mooy fa lañ fajee al ñi al al ñi jëfandikoo alcool ak drogue parce que loolu la bëgg jamono ji ñi ngeen gis également di mayo waa ren ren bu Alfred Gomis li moy mayo yi nga xam moy mayo domicile ñi ñu wara sol deewon également parce que jamono ji dañoo tollu ci gaay di def promotion mayo yi nga xam moy mooy génn saison prochaine pendant ça aussi hein ki ngeen di Disney, don't donc di El euh, Nayane nekk nak euh, propre président hein, Émirats arabes unis fofu non la dirigeant la foofu ba paré également li nga xamné moy on entreprise bi hein, di City groupe City momoko mom mom nak mom mom ay club bi notamment Manchester City mom nak dafa daal wacc wàcc du côté de la France nag hein, une première offre de rachat serait formulée pour le FC Nantes manam jamono ji donc euh, Kita Vladimir kii Valdemar Kita moy président donc bu Nantes mo actuellement dal amna offre yo xamné dañ koy tek ci table pour daal jënd Nantes bi nga xamné mom moy président foofu noonu ki nga xam ne nag moom mooy kii di euh, de spécial one Joli Mourinho xam ngeen ne moom ah moom yorul làmmiñ dencu làmmiñam ci poosam moom nee ni muy naqarloo li nga xam mo xew ci li nga xam moy donc ci Ukraine et tout noonu lay naqarloo également li xew ci Palestine et tout donc mom ñom ñep la boole yemale ngeen gis photo bi nag également kenn moy Kun Agüero ah taxaw ci statue bi nga xam mom lañ def jamono ji ci devant devanture stade bu Manchester City ah nek lool pour rendre ko hommage mom mi nga xam mo moo leen jox titre yi ñeek ci titre yi nga xam wa Manchester City am nañ ko Abdoulaye Seck ah mom dem ak équipe am waan Antwerp mom mo dugal ah dugal na dem bi le défenseur sénégalais champion d'Afrique bi nga xam aussi du côté de son club mi ngi wone boppam Nank, Nank Abdoulaye Seck nga aussi hein donc euh, c'est un joueur malheureusement mu ñu woon joué ci Coupe d'Afrique bi match bi ndax blessure bi mu pendant ce temps également qui di Boulaye il retrouve la forme Boulaye Dia également démb passeur décisif qui hein, ci euh, victoire bi nga donc waa Villarreal am ko donc ci Rayo Vallecano mais aussi on a remarqué que est aussi hein, Nicolas Jackson que joueur ancien joueur boo xam Casa également dugg na remplaçant est un jeune boo petit à petit mi ngi wane et on espère que dina gëna am temps de jeu pour également euh, def li nga xamné mom la ñëpp yaakaar ci parce que c'est un joueur petit de talent et également benen joueur bo xamné c'est le petit frère hein, de Salu six muy Pathé six Pathé six dañ ko hein, pour mu bokk ci ñi nga xamné moy meilleur joueur africain ci Liga ba mom ak ki nga xamné moy mooy Boulaye Dia bokk na ci muy deux Sénégalais yoo xam ne représenté donc Sénégal ci trophée meilleur joueur africain de la Liga bokk na ci bia également Aubameyang Costa ci la bokk également entre autres

di Bremer nek défenseur bu nek Torino mom mi meilleur défenseur bi mu gis jamono ji hein notamment ci Italie Kalidou Koulibaly la mom fimné ni wa Paris Saint-Germain ñoo ci tek seen gët beaucoup ko daal di jënd le défenseur de Torino Bremer également li nga xamné moy ci Premier League gars yi meilleur joueur de la saison ñi lañ tan hein ah, Trent Alexander-Arnold ci la bokk également Bukayo Saka ñom Son ah, De Bruyne Cancelo Salah également Ward-Prowse ñi lañ tan daal nga xamné moy ak euh, également Owen pour euh, Bowl plutôt, pour nous nga meilleur joueur de la saison. pendant ce temps également gars depuis 10 ans depuis 10 ans Nous nga xam donc tay wa euh, Liverpool ñu ngi jouer euh, a une finale FA Cup hein. donc match demain là, match bo xamné ce sera un match très décisif et Sadio magnifique magnifiquement Mané sera très attendu à face à bien entendu Edouard Mendy et gis et c'est demain demain pour ramener donc euh, l'Angleterre va vibrer on espère que sincèrement jamono jii nii ah, comme je dis bëgg Edward Edouard Mendy gagner mais Sadio Mané bu gagner parce que mu a une am de gagner li nga ballon d'or européen bi nga pendant ce temps aussi ki nga ramené donc le club de football Gomez d'aller prolonger li nga xam ne aventure Liverpool donc prolongation avec un contrat en longue durée le club fi ñu ko le défenseur Gomez pendant ce temps également ki nga xamné nak moy Jimmy Carragher Jimmy Carragher amna na lu mu wax ci Sadio Mané Sadio Mané actuellement bi nga aujourd'hui au niveau de l'Angleterre on parle beaucoup de lui Carroll Geur nena tay na tey euh, Jürgen Klopp bu mënee jënd ay ñoom Mohamed Salah ay Van Dijk nena c'est grâce à Sadio Mané parce que nena Sadio Mané première saison bi mu ñëw def ko ci Liverpool il a fait une saison exceptionnelle qualifié Liverpool ñu dem Ligue des Champions looloo tax nak gëna jox fit ñi nga xam moy ñoom Mohamed Salah ay ñom Virgil van Dijk par la suite ay ay Fabinho ay ñom donc hein, euh joueur yu bari tay euh, ñu mën leen jënd après nena tay Sadio Mané c'est le joueur bo xamne tay mom nena c'est le meilleur joueur bi nga xamne sous l'ère de Jürgen Klopp mom la gis ñom nena Jimmy Carroll nena man Sadio Mané mooy mon meilleur joueur sur l'ère de Jürgen Klopp amul joueur bo xamné tay tey mën nañu ko tek ci kawam et nee c'est un joueur bo xamné il est sous côté il est sous côté wax na ko yoon mu ne Sadio Mané joueur bo xamné joxuñu ko njëgam joxuñu ko njëgam joxuñu ko gëddëm joxuñu ko gëddëm loolu la gis ki nga xam ne mooy Jimmy Carragher et que nee na Sadio Mané saa yu Liverpool nekkee ci situation bu metti moom mo leen ci génne et chaque fois également bo xamné Liverpool da fay soxla bo xamné c'est un joueur décisif néna Sadio Mané mom mo fa nekk néna tay tey comme je dis grand joueur yu bari bu ñu tay tey ñëw Liverpool à la base c'est grâce liggéey bi nga xamné aussi Sadio Mané def na ko ñëw fekk fa ki nga xamne moy Philippe Coutinho ak également euh, ki nga xamne moy euh, donc Firmino ñu def liggéey moom mu def saison bu stratosphérique donc néna aujourd'hui Sadio Mané nek na joueur bo xam il est indéniablement le meilleur joueur de Liverpool moom ci gis-gisam et que tay nek na joueur bo xam tay gaay waruñu ko di sax di di sax saxé di am laam mais néna actuellement il est au-dessus de tout le monde Dès ko va dire que gëddëm tey proposer nit ñi yenn un ñom ñu ñoo ko a proposer yenn salaire bi nee nak aujourd'hui euh, la question que tout le monde se pose moy nak Sadio Mané day toog du tok mais nee mom moom bëggut a gis bëggut a sax dégg ñuy wax ne Sadio Mané day dem fi wala day dem falé parce que nee aujourd'hui le débat ne se pose pas nee actuellement si on parle de Mohamed Salah si on parle de Sadio Mané si on parle de Luis Diaz et tout ñom ñep c'est des joueurs exceptionnels mais mom nee man mon joueur. ah sous l'ère de Jürgen Klopp ñi ma gisagum ñu jaar ci Jürgen Klopp ñi ma gisagum ne tey ñoom ils sont décisifs ils mouillent le maillot dañuy jox gëdd la def et tout et tout et tout nee na te que tey Liverpool bu yeggee fii bu ñu koy jaay di ko promouvoir surtout jamono jii nii ak résultat yi am c' est grâce à nee na tey bu ñuy wax waxu Sadio Mané naan dégg club yi naan non kii dafa bëgg Sadio Mané kii dafa bëgg Sadio Mané nee na Liverpool tey a def dañoo a ah, lekk du dugg dara dugg ne ñoom dañoo war a teg embargo ñi ne mooy club yi bëgg euh, Liverpool muy plutôt Bayern de FC Barcelone Lodal, dal la ki nga Jimmy alors Barcelone également gars yi jamono ji ñi ngi seen phase de recrutement xam nga Barcelone également gars yi ñoom chaque année dañuy tudd ci joueurs yu bëri bëri bëri bëri mais à la fin du ñu jënd kenn et on espère que cette fois-ci ce sera la bonne pour Barcelone parce que ñoom tamit mérité nañ renforcer seen équipe ba tax na jamono ji nag ñoom seen équipe bi dañoo bëgg attaque bi priorité bi nekk Robert Lewandowski mais ñi nga xam ne nag Marca nañ tey Barcelone même bu bëggee Robert Lewandowski Barcelone keesam amul amul gafa gi amul koppar maanaam tey bu ñu bëggee jënd joueur bu mais il faut que ñu jaay joueur yoo xam ne ay joueur de talent lañ ku ci mel De Jong te ñoom neen ñoom jaay De Jong mais li leer ba leer mooy que ne Barcelone Marca waxnako donc également journal yu bari wax nañ ko waxoon ko tay journaux yu bari wax nañ ko nee nañ dinañ formuler sen première offre pour jënd ki nga xam moy Kalidou Koulibaly parce que sen priorité moy renforcer sen défense bi nga xam comme tay comme ah comme tay ah comme tay da day tay tey teyukaay la comme teyukaay la sen défense bi nga xam day seen fépp motax ñu def ko priorité en tout cas les gars c'était les informations que je voulais vous donner de grâce bu leen fàtte suñu frère Souleymane Sylla lu ñu def suñu bop lañ ko defal way leen di like way leen di abonné ça se passe ici gars avec vous ja ngeen jëf